président ak ñeneen chirurgien dentiste bi moom la pour muy ubbeeg te gémmiñu nit ñi képp ku day pour ko ci bi donc ci responsabilité moom moo voilà donc xam hôpital la xam cabinet privé la chirurgien dentiste bi ci cabinet bi bu fekkee ñoo ñu koy jàppale ñu ngi fa assistant bi moom moo koy jottali euh, instrument jàppale ko ci liggéey bi di ko jëmtuwaay yi pour mu mun a faj kooku moo di assistant dentaire bi technicien supérieur en odontologie bi de defe naa ne ci l'hôpital ba lañ koy fekk ndax fa lañ ko war a gën a mën a fekkee foofu malade yi dañuy bare léegi nag chirurgien dentiste bi mooy saytu xool bu xoolee malaat bu nekk xam ne lii xëj na feebar bi doon na loo xam ne ne luy lu oyof la mu dénk technicien bi donc noonu la koy jàppale donc am na ay jumtuwaay ak liggéey yu ndaw ndawaan yoo xam ne moom ci lay ci la ci la mun a jàppale chirurgien dentiste ci loolu dindi bëñ yu yu simple waaye dindi bëñ nag ngay xamee ne simple boo ko tàmbalee tam mu am problème moom dentiste bi du sori day daal di ñëw yeggali Non, non, ay kar yu ndaw su ko defé mom non lay euh, chirurgien dentiste voilà du def posé amna dal yu mu def du def posé bi yenn dindi yi bu compliqué du ko def donte dal mom buy liggéey dal chirurgien dentiste bi du sori ndax daf ko wara a Wow. wutu bu dafa jaxaso waaw technicien supérieur en odontologie Qui ci dess technicien de labo de prothèse dentaire manam koku buñ ne poose moom moo koy defar kooku it am na fañ ko yemale am na lu mu mën a def am na lu mu mënul def la mu mën a def mooy mun na ubbi laboratoire moom mun na beru mun na nekk moom kese waaye ca laboratoire ba amul sañ-sañu sànni fa fauteuil wala naan nit ki di di natt ak di def leneen moom dentiste bi lay liggéeyam dentiste bi bu nattee ca cabinet ba daal di ko woo ne ko moom mun na bañ a xam sax ndax euh, ki moom poosé bi ndax dafa ñuul ak dafa xees ak dafa njool dafa gàtt ndax moom ci laboom lay liggéey donc kon bu defaree poosé bi daal di ko delloo chirurgien dentiste bi chirurgien dentiste bi léegi moo koy monter ci gémmiñ parce que defar ko yomb na waaye dugal ko ci biir gémmiñ ki kooku beneen liggéey la te loolu chirurgien dentiste bi rek moo ko mën voilà xaw ma ndax euh, tontu nañu exercice bi donc illégal bi donc ku duggul ci fànn yooyu comme ni mu ko waxee am nga nationalité maanaam sénégalais nga yor nga diplôme mu chirurgien dentiste sa lijaasa mët na léegi nag ñetteel bi mooy nga nga bindu bindu ci ci ordre ndax am na am na lu ñu la sas at bu nekk loo war a fay pour mun a bokk ci ñu war a mën a liggéey ci at boobu ñu ñu ñu ñu ne ci at boobu boo fayul maanaam comme ni mu ko expliqué même bu dee nu mu ko doon euh, firee sànq même bu dee chirurgien dentiste nga bu boobaa booy liggéey illégalement ngay liggéey tegoo ko ci yoon loolu bu weesee moom article boobu ngeen wax juróom benneel bi dafa ne étudiant yi am na fu ñuy toll maanaam presque mën a donte na benn at a leen ñu pare wala ñu ngi ñu ngi at boo xam ne dañoo war a soutenir def seen thèse ñooñu ak technicien yi ma doon liim sànq ñooñu mun nañ liggéey ci gémmiñ waaye ci naka ci yan fànn mooy ne ci responsabilité wu chirurgien dentiste bi kon ñoom fépp fu ñu mun munti nekk war na am chirurgien dentiste bu sorewul naam bu dul ci même euh, même bërëb bi soriwul naam ci hôpital bi chirurgien bi mun na nekk ci beneen salle waaye technicien bi fa muy liggéeyee foog mu am chirurgien dentiste bu fa ne ndax bu jaxasoo walla am na problème ci li muy def ndax bu ñu ne sax dindi bu simple waaye dindi naka ngay xamee ne yomb na boo ko tàmbalee yenn saa yi même bu dee bañ boo yaakaar ne du la indil problème da lay indil problème bu boobaa chirurgien dentiste bi da koy woo rek mu ñëw moom yeggali ndax moom moo xam fu muy jaar ba mun koo yeggali kon ñooñu seen seen euh, mën-mën dafa am fu mu yem looloo tax saa suñuy liggéey rek dina am chirurgien dentiste bu nekk seen seen ginnaaw pour jël responsabilité bi est-ce que defe naa loolu neer la waaw pro euh, yenn euh, produit yi ñuy jaay ci mbedd bi walla feneen naan day leeral bëñ ak yooyu comme luñ ko waxee defe naa ne pharmacien yi ci gën a mun a tontu ak li li suñu naatongo bi wax léegi ministère am na ay jumtuwaay ak euh, ay bureau yoo xam ne loolu mooy seen liggéey ñoom ñoo ko war a saytu pour jaarale loolu yëpp ci yoon ba ca des defe naa waaw Covid bi waaw moom impacté defe naa kon ñu déggoo ci impacté lu mu daan ne maanaam Covid bi laal nañu du rek ne dafa am dentiste yu mu laal donte mën na am boo demee ñu mu laal waaye dañoo ne naka la ñu laalee mooy sooxee na suñu liggéey sooxee na suñu liggéey ndax jëmtuwaay yañ doon jëndee sànq suñu président syndicat mu ngi bëgg a fàtte sax waaye ca ndoorteel ba euh, masque ya doon jar junni dem na ba jar ñaar fukki junni ñaar fukki junni maanaam cent vingt cinq mille cent mille cent vingt cinq mille dem na ba foofu après mu ngi wàcc waaye ban tey des na encore xanaa léegi mu ngi ci soixante quinze mille ba doon jar euh, juróomi junni eh, juróom téeméer demoon na ba ba di jar juróom-ñaari junni kon ngeen ngeen war a xam ne kon Euh, liggéeyu euh, dentiste yi foofu la ñu waxee ne metti woon na te doonte loolu am na dañoo gisul dimbalu ministère wala jotuñu ko bokk la yegg si comme ni ko président waxee ñu leen ko waññalee defe naa doyul sax pour benn chirurgien dentiste te loolu dafa waroon jàppale lu mat ñetti téeméeru cabinet privé noonu ci public bi it ñoom sen euh, lañu wara jëfëndiko dañ ko jaarale peut-être ci sen euh, médecin chef yi comme ni ko expliquer waaye doyul won nak comme ni mo wax ci ndortel bi bu ñëpp né sol leen seen masque ñun dañ naan dindil ñu faj la voilà té xam nañu feebaru Covid bi naka la doon wàllaate looloo tax ñu wax waxu impact kon nak loolu bu amé té ndortel ba ñun sax dañoo né sax nañ tej ba xam naka lañu mëna mën a liggéeyaate du lor suñu bop duñu ñu lor askan bi loolu indi nag kon kooke ndax ba tey bu dee ci privé bi nga nekk war ngaa fay loyer war ngaa fay courant ndox ñun loolu yëpp ñun gisuñu fenn fuñ ñu si jàppale moo tax nag ñuy ñuy woote waat euh, autorité yi pour naam ñu bàyyi xel ci man damay wax sa profession libérale maanaam ña demal seen bopp ci santé defe naa dañ leen di xaw a fàtte ndax bu ñu nee santé rek ñun li ñuy dégg dañ naan dañu defaraat jumtuwaay yi gën a arrangé gën a yëkkati waaye du ñu wax ñi ciy liggéey te tey defe naa war nañ delloo njukkal euh, ñiy liggéey ci santé moo xam ñoo demal seen bopp moo xam ñoo nekk ci l'hôpital yi ndax euh, coono ga ñu nekkee te jeexagul ah dañ leen ci war a gëstu jàppale leen si naam bu leen ci neexalu ñu jox leen li ñu li ñu yelloo